ak yooyu convaincre Sénégalais yi moo gën ngay nekk parce que tey boo bàyyee benn affaire da nga war a bàyyi lépp carrément dégg mhm. loolu nag moo am te xam naa ni moo tax bëgguma yàq sama émission mais moo tax ma mag Doudou Wade émission bi dina neex trop. waaw dina moom xam naa ne dina euh, dina man du ma ko invité pour mu ñëw def communication de mhm. man du ma invité benn homme politique pour ngay dawal communication da ngaa fas yéene defanteeg. ah waaw man de dañuy defante de. ah du euh, ko bàyyi nag. Ah, waaw mu leeral moom dafa soxla leeral. waaw waaw waaw leeral mbir yi mu leer Sénégalais yi ci boppam ñoo soxla mbir yi leer. naa ñu xam ñu xam exactement moo tax danaa ko laaj les bonnes questions. waaw bul xuloo nag bul. non non man de man non man kaay ma xamal la benn affaire. xam nga li ma waxoon. Mhm. li ma wax si si suñu concert boobu nekkoon 2S. Mhm. nee naa ko invité nit. Mhm. mu toog ba si yàgg jóg ne maa ngi ñibbi. defetu journaliste la defetu journaliste la effectivement. dégg nga jubaa mhm. asantuma nag nga mhm. defetam la xoolal yow da war a fexe ba juum waaw elle est très war a fexe. Mhm. ba waaj bu mu génn émission bi. yow naj ko koj ko. comme nga la ah ban bara jeeg yow gisoo Pape Ngagne Ndiaye. fexe ba am yow Pape Ngagne Ndiaye am na nooy demee sax nga wax ko mun la wax baal ma maa ngi jéggal. Mm, mais c'est ça c'est waaw nga rabroué ko de. mu war a mun mer mun la wax maa ngi jéggal. comprendre nga la loolu nag geste de grandeur la de. man fii mhm. kii woote na fi en direct suñ baara dolli mhm. suñu xarit mhm. suñu sëriñ képp ku xam duudu Coulibaly xam nga ni duudu Coulibaly moo gën a dëgër bopp ci Sénégal. dégg nga fii la wax mu ne ma retirer li nga wax te man xam nga analyse laa def. mu ne ma retirer li nga wax. ku xam sama dëgër bopp <laughs> xam ni man man je retire jamais mes propos mhm. mais sagal ko moo tax nga retiré jox ko cëram mhm. moo tax ma retiré ko loolu mooy yoon mhm. dégg mais l' incident est clos mais su ma su ma su ma ko waxoon tey beneen affaire tey gars yi dagate nañ ko naan Doudou Coulibaly humilié en direct xaw ma lan la kii mais est ce que est ce que cëru journaliste la pour nga taxaw fii di humilier ay kilifa non c'est pas euh, c'est pas je sais nu ma ko mën a waxee mais nag nit ku nekk ci li ngay liggéey ci ngay juum mm. ci ngay defee erreur donc vraiment dañ koy nangu aussi euh, moom tam elle s'est excusée que ne dafa juum xam nga boo juumee nangu ne da ngaa juum moom euh, du du du metti pratiquement mm. punition bi day xaw a mais bu muy jéggalu mm-hmm. turul sëriñ bi de. waaw jéggalu jéggalu auprès de waaw loolu loolu tamit dëgg la booboo gën a garaaw sax mm-hmm. kon jéggalu dëgg la en tout cas keroog moom dafa juum moom mm. waaw dafa juum dafa juum su doon chaise bi mu toogoon maa fa toog tam du ma sëñ bi du génn plateau bi dinañ def émission dinañ àggali émission bi bi dina àgg parce que euh, àdduna am solo hmm. mais euh, Doudou xam yenn saa yi nag yéen jigéen du ngeen nekk Mm. waaw loolu moom dëgg la. parfois du nekk suñu assiette. waaw yenn saa yi ngeen banque. waaw loolu surtout banque gi. saa yi ngeen am chagrin d'amour. waaw surtout yenn saa ñu am gumain. waaw saa yi suñu copain yi takk keneen. suñu copain yi trompé ñu. wala yenn saa yi yenn saa une femme mariée commencé jël grossesse. <laughs> waaw genre affaire yooyu da ngay nekk ci benn moment boo xam ne. moo tax yéen a ñuy comprendre doo nekk ko waaw ah, jigéen moom mi ngi noonu yéen a ñuy comprendre daal du mm, noonu. Mm, <laughs> mm. ñoo far ay ca duudu ñu wax ci nouvelle forme de transhumance yi nga xam ne nemmeeku nañu ko. waaw. waaw gis nga Boubacar Camara conférence de presse bu mag bi mu def ak lam ca wax yëpp. mel ni moom nekkatul opposant fi mu toll nii de. waaw cuubu man suñuy